ci yéenekaay yi ci yéenekaay yi El Hadji Ousseynou forage jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy doo ak la turbine yéenekaay gi dañu xam moom Dany Gueye ak lu toll ci fukki million yéenekaay gi dañu xam ñoom kay jamono ji loolee mooy li nga xam ne Bougane Gueye Dany jot na leen ko jàppale waaye tamit teg ci kàddu yu saf sàpp tàng jër moom Bougane Gueye dani l'évidence yéen kaay xamal ne maanaam daal njiit yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réewum Sénégal wala sax yi nga xam ne rek ñooy moom moo di Pikine foofee kay politique ba saf na fa sàpp moom moo di maire ba Pape Gorgui ak ki nga xam ne rek moom moo di Cheikh Tidiane Dia responsable politique ñoom kay daanaka xaw tuun ñu xeex la ko waral rek moo di ku ci nekk nag bëgg politique lijjante li nga xam ne rek moom moo di wàllu mbënd meeg yu ni mel ku ne naan maa def lii maa def laa loolee lépp rek ngir waajale ko lu jëm ci wàlluk élection locale yi fekk jamono jooje Abdou Mbaye ci yéenekaay bi dina xamal ne Macky Sall mii daal bu fekkee ne moom la yaakaar ci wàllu mbënd mi plan bii nga xam ne rek tegoon na ko bu baag léegi amul dara loo xam ne soppeeku nañu tey nag plan boobee bu fekkoon ne fañ ko waroon a jaar jaar nañ ko fa jamono ñoo xam ne maanaam daal Sénégal ba mu amee indépendance ak léegi lii nga xam ne rek moo di stratégie yi nga xam ne nguurug Macky Sall na ko ngir génne askan wi ci jafe-jafe yi loolu gisul kenn koo xam ne teg na ko fi <clears throat> kase ne ñaari junni ci ay logement ci lu toll ci juróom-ñetti weer critique yéene kaay dina xamal ne assemblée nationale dina woo ministre yi nga xam ne rek ñoo taqee wala ñu laale ci lu jëm ca googalek fànn ñoom la ñu dénkoon plan boobee jëm ci wàllu ci wàllu xeex mbënn mi critique yéene kaay dina xamal ne kaay dina xamale maanaam daal état bu Sénégal danoo yab ñi nga xam ne rek ñoo di askan wi ci ni nga xam ne rek noonu la ñuy doxale wàllug mbënd meeg yu ni mel fi mu toll nii kay ay kàcc ay loo xam ne dañu koy wax te du dëgg noonee la dëkkeek askanu Sénégal Mamar Dóor ci 24 xamal ne loolee la njiit yi nga xam ne rek ñoo jiite réewum Sénégal di doxaleek askan wi li yéene kaay xamal ne askan wi sonn nañu lool waaye ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee

slogan la mujjee maanaam waxi kese Seydou Gueye ci yéenekaay bi ne nag du waxi kese ndax jamono ji maanaam daal corona bi moo baare li nga xam ne rek moom a ci secteur informel bi di góorgóorlu xamal ne kàddu yi nga xam ne daal Ousmane Sonko yëkkati woon na ko doon ko jëmale ci li nga xam ne rek moo ki war a jiite ku jégi moom Thierno Bocoum ànd laas yéenekaay di ñu xamal ne jamono ji nga xam ne rek askan wi ñu ngay bëgg moom jiitu réew mi Macky Sall kay jamono la muy waajal moo di maanaam daal yaatalaat gouvernement bi am ñeneen ñu mu dugal am ñenn ñu mu génne Mamar Jong ne ko musiba la jamono ji askan wee jafe-jafe gi nga xam ne moom la ñuy am na yeneen yu gënoon a farata loole fekk jamono joojee Les Échos yéene kaay duñu xamale am na benn doomu réewum Allemagne boo xam ne ab terroriste la jamono ji nag teg nañ ko loxo ci réewum Sénégal waa réewam ñoo sàkku lu ni mel enquête yéene kaay duñu xamale a a dem ca marché ba jamono ji gisuñ benn jëm daanaka nag géej gi dafa sàmbara loolee nag bu amee dina metti lool ci njóobeen ni xam naa ne nag kalaasug seex béy gi seex géy nga xam ne luñ mën di am ay jën leen ko gënal dina metti ci ñoom lool n'est-ce pas Babacar Diakhoumpa